ak nitam ya sax ci ñoom junne at yu manqué juróom fukki at di leen woo ñu bañ a wuyu ba pare ña di ko reetaan di ko soxriyee waxtu wu nekk rek ñu nekk ci mbir yoo xam ne mbir yu koy mbir yu ñu yaakaar ni daf koy delloo gannaaw ci lañuy nekk ak moom ci lañuy nekk ak moom ñoom nitam ya ba yonent yàlla noox nag daldi ñaan yàlla yow ne ba ba yonent yàlla noonu nekkee ci nit ñi noonu yàlla xamal ko ne ñii la topp rek ñoo lay gëm ñi ci des ñëpp mënoo def dara bañ gëm la ba mu ko defee ba mu xamee loolu nag mu dal di ñaan nitam ya yàlla ba mu ñaanee yàlla yàlla nangul ko ñaanam waaye nag na defar gaal goo xam ne waxtu boo xamee ne bu yàlla di alal nitam yi ci eh, ci gaal googu moom moo koy musal moo ñi nga xam ne gëm nañ de ba mu ko defee yonent yàlla nekk di gas di defar gaalam bu muy defar gaal waxtu wu nekk rek ba bu liggéeyee ba bëccëg bi liggéey bu guddee rek lim liggéey yépp waa waa nitam ñi ñëw yàq ko mu nekk ci loolu ba jaaxle yàlla ne ko na sax na na yar xaj ba mu ko defee yonent yàlla Moussa yonent yàlla noonu daldi yar xaj xaj boobu mooy xaj bi nga xam ne moo koy wattul liggéeyam bu guddi ñëwee bu guddi jotee ba gaa yi ñoo ñu ngi yàq rek mu baw leen ba dàq leen ba mu ko defee nag ba nga xamee ne gaal ga pare na yàlla waxoon naa yonent yàlla noox bés boo xëy di lakk mburu rek gis sa pour bi di génne ndox xamal ne mbir mi pare na de yonent yàlla noox ba ko yàlla di wax ne na defar gaal boobu foofu yëpp amul géej yonent yàlla noonu ko mosut a gis géej mosut a gis ndox ñoom tamit mosu ñoo gis ko de waaye ba nga xamee ne nag mbir ma pare na yàlla sant yonent yàlla noo ne nag léegi na nga jël ci mbindeef bu ci nekk rek na nga góor nga jël góor ak jigéen bu ci nekk rek nañ ci ñaar ñaar ñaar góor jigéen góor ak jigéen mbindeef nekk yëpp ba mu ko defee yonent yàlla mos yonent yàlla noo dal di jóg taxaw bu tàllalee loxoom ndeyjooram góor dal ci tàllale ndoxo càmmooyam jigéen dal ci noonu lay def noonu lay def ba dugal ci gaal gi yépp mbaam moo mujj dugg ci gaal mbaam li muy dugg ci gaal gi iblis ñëw la ngaamu ci gennam mbaam ñëw dugg dugg mënta dugg ba mu ko defee yonent yàlla noo nga tax nit ñi yàkkamti yàkkamti bu ko defee mbaam delloo gannaaw rek iblis bàyyi bu ne mu ngi dugg rek iblis tàngaamu ci ba muy ñetti yoon yonent yàlla noo ne mbaam mi duggal yow yow kuy rëbb ki ba mu ko ne duggal yow kuy rëbb ki rek mbaam dal di dugg ba mu ko defee iblis itam dal di duggaale yonent noo laaj iblis yow ci sama gaal gi mu ne ko ah, du yaa wax ne te man rek lañ rëbb ci àddina man kay man nga wax naa dugg loolu moo indi yonent yàlla noo moo indi noo ca gaal ak yonent noox nag dajale na mboolem mbindeef yi nga xam ne ñoo war a nekk gannaaw bu nitam euh, ñëpp alakoo ba muy dem di génn ba ba ñaan yàlla am na benn toboronk ñëw ci moom ne ko dégg naa da ñaan sa sa sa sa yi sa nit ñi yàlla mu ne waaw mu ne ko dama bëgg nga xamal ma bés boo xam ne ci la yàlla di alak mbindéef yi bu ko defee ma ñëw ànd ak yow ndax ma mucc yonent yàlla Nuux ne ko waaw mu daal dem toog toog toog toog ba yonent yàlla Nuux dugal nañu ci gaal gi gaal gi am na ci ndox mi juróom benn weer yonent yàlla Nuux dal dugal góor dugal jigéen bi mu dugalee góor ak jigéen nag dal di xaaj gaal gi ñetti xaaj ñetti ñetti ñetti kal kal bi ci suuf mi njaxal yi ak jur gi rek ñoo ci nekk kal bi ci digg bi nit ñi ñoo ci nekk kal bi ci ñetteel ci la picc yi nekk de ba mu ko defee nag yonent yàlla noo dal di sant ñi ci gaal gi yépp ne leen bu leen boolooti bu leen séyeti ndax bu buñ feesee gaal gi te xamuñ kan la ñuy génn boo gaal gi mën naa suuxam ñun ba mu ko defee ñoom ñëpp ñu dal di téye seen bopp sëyetuñ mbindeef yeeg ñu dul mbindeef yëpp ñu téye seen bopp ba mu des xaj moom léeg-léeg mu sàcc dem def jabaram ba mu ko defee muus dal di koy gis dal di dem boole ko yonent yàlla noox ne ko xaj dafay def nangam ak nangam xaj dal di ñëw ci yonent yàlla noox yonent yàlla noox oo ko ndax yaay def nangam ak nangam mu ne waa maa ko def waaye tuut na du ma ko defati ca suba sa mu defaat ko muus boolewaat ko ko yonent yàlla noxowaat ko mu ne wax benn yoon bi rek tuub naa bu yemam dootuma ko defati yeex na mu dal di dal di koy defaat muus dal di dem boolewaat ko yonent yàlla noox ne ko yàlla la yàlla feeñ yàlla la yàlla weer yàlla la yàlla weer boo ko defatee moo tax xaj ba léegi bu defek bu defek jigéenam ba pare rek dootu du mën a génn ala foog daf fay nekk ñetti fan ñeenti fan ba àddina bi yëpp gis ko mu door a mën a génn de ba mu ko defee nag xaj itam dal ñaan yàlla muus ne ko toroxal nga ma yàlla la yàlla toroxal yow tamit moo tax muus itam waxtu woo ko déggee muy defa muy def ak jigéenam rek ñoo coow la ku nekk dina leen dégg ñoom tamit de xaj moo leen ñaan yàlla moo tax <coughs> ñaan yàlla jaamu yàlla mënu cee doylu ndax amul ku dul moom xaj ni ko nit ki ko doomu aadama yi teg yëpp waaye teewul moom ñaanee yàlla ndax gis na ne dañ koo tooñ yàlla nangul na ko ñaanam bon nag ñaan yàlla war na lépp mi ndeef boo xam ne mu ngi ci kaw suuf ak ku nekk ak na ngay ñaanee yàlla may na nag nit ñëpp nit ñi ñoo gën a mat ci li yàlla bind ñoo gën a mat itam seen wax jëmale ko ci yàlla mooy gën a mat waxi ñeneen ñu du ñoom moo tax bon nit war na waxtu wu nekk rek jullit ak ku dul jullit sax war war na waxtu wu nekk rek ñu saxoo ñaan yàlla rek <coughs> ba mu ko defee fajal euh, euh, yi bëri ci biir gaal gi lool yàlla la li ne <coughs> yàlla daal di tañal di bëri ci kaw ci ci biir gaal gi lool lool yàlla daal di wax yonent yàlla noo ne la na laal naraay euh, ñay ba mu ko defee mbaam xuux génn ci mbaam xuux moom ñoom mbaam xuux yooyu ñooy lekk tilim bi ci gaal gi yépp ba ko defee nag ah, janax yi itam tàmbali di bëri di macce di lekk gaal bi moom itamit yàlla daal di wax noox na ko na laal bakkani gaynde su ko defee ñoom tamit ci la mu si génnee ñoom itamit ci la ñoom tamit di lekk janax yi ba moo tax gaal ga mucc ci janax yeeg ju jurante bu bëri beeg tojoor yu bëri yi ci biir yëpp yàlla musal na ci gaal gi ba mu nekk ci géej gi lu mat juróom benn weer ba juróom benn weer yooyu jeexee euh, Shaban Ramadan Shawal ba ci rajab rajab la teel la teel ca barab bu ñuy wax ak juud yi ca Iraq ca foofu la garga teel waaye léegi nii jamono yi gëstu yu bees yeeg gis-gis yu bees yi ñu ngi wane ne gaal bi mi ngi teer ci Turquia ñii ngi wax ne mu nga teer ca Ordon fi mu ne nit ñaa koy xëccoo ku nekk di wax nan ci man la teer waaye li jëkkoon ci téere yi nga xam ne moo njëkk nit ñi daan bind te noo gën a jege taarix rek noonu nga koy gën a xamee noo gën a jege taarix noonu nga koy gën a xamee ki la gën a sori moom nettali nettali nettali rek nettali nañ nettali nañ bon ki la gën a jege moo gën a war a xam taarix moo gën a war a xam itam détail bon ñi gën a jege taarix bi ñoo gën a mën a wax lu dëppoog dëgg waaye taarix itam xóot na xóotaay boo xam ne kenn du ci wax ne lii mooy dëgg ci biir taarix lu dul li ñu alxuraan nettali rek loolu moom alxuraan ko nettali yàllaa ko nettali te yàlla moom mi ngi teew waxtu lu nekk li ci des nag xel yi nit seen gëstoo seen i nattale ci la ñuy dëgg ñoom tamit lu gën a bëri ngir bind ay ngir bind taarix rawatina taarix boo xam ne lu ma téeméeri ak jaar na sa digganteeg moom bon ñi nga xam ne ñoo dund ak waa taarix ba dañuy bind moo gën a wér ci li nga xam ne gannaaw téeméeri at la ñu war a ñëw ne dañuy bind ci taarix boobu rek bon ñi nga xam ne njëkkoon nañoo wax ne gaal gi ma nga teew ma nga teew ca Mawsil ci barab bu ñuy wax juudi foofu la gaal ga teew ba nga xamee ne nag lépp dugg na ci gaal gi ba mat ba nga xam ne gaal gi na yàlla ne waxaa la wax noo nitam yi na leen irkabu war leen fiihaa ca gaal ga bismillaahi tur yàlla mu ñu weeha mooy ak dawam wa mursaha te mooy ak teewam de yéen ñëpp dugg leen ci gaal gi nag li koy dawal mooy bismillah rek boo waxee bismillah mu mu mu daw boo waxee bismillah mu taxaw <coughs> amul capitaine amul essence amul dara eh, bisimilah rek mooy doxal gaal gi moo koy moo koy taxawloo de ba mu ko defee Moussa Noox moo tax ba léegi koy dugg ci gaal di wax bisimilah <coughs> yàlla mën na laa musal ci ayu gaal boobu de doon <coughs> na wàcc ci jàpp. inna rabbi naka borom sama la xafoon jéggale akoon la mu ñeelaay xëy jëm raxe moom aji yërëm na mu leen baaxal gu leen de. ndaw soosu ñëwoon ci yonent yàlla Nuux di ko battali boppam yonent yàlla Nuux fàtte ko <clears throat> fàtte ko fàtte ko ba dem ci gaaj gi dem ci gaal gi tukkeem na juróom benn weer ba teeraat ba bu ko defee ndaw si dal dégg na yonent yàlla Nuuxal dal di ñëw seet si ko ne ko waaw xanaa la nga doon ndox ne dafa amut ne ndox dana ñëw nit ñi dinañ lat xanaa loolu amut mu ko am na kay mu ah, du battali woon na la sama bopp mu fàtte woon naa la wante yow mel na ni yow wala xew de ndax moom tamit yàlla sàmm na ko ba nga xam ne néegam ba nga xam ne ci la dëkkoon ba gànnaam ba bi ndox mi ñëwee yàlla musal na ko teggi na ko dara dara ko de ba ma nekk ba génn ba ndox ma ñëw ba dem mu door a ñëwaat ci noonu de di fàttali ak boppam mu ne ko loolu weesu na ndox ma ñëw na ba dem na ñuy ala ko ko nañ moo tax nit wàkkirlu ci yàlla rek boo dëggoo gëm wàkkirlu ci yàlla amul dara looy ragal mu mën laa lor waaye nag su fekkee say pexe rek nga yaakaar ay pexe mën naa demee noonu waaye mën na bañ a demee noonu itam ndax su fekkee da ngay fexe li ngay fexe yaa ngi ciy dugal nit pour lor ko mindeef pour lor ko bu boobaa yàlla ngay jëflantee ndax yàlla moo ne wa makaru wa makara allahu wallahu xayrul makirina wan li ngay def rek tëral ko ci say pexe bopp na nga mag bu duggal ak génneeg du ci nit ñeeg lu la neex nga wax lu la neex nga dugg ci biir nit di wax loo bëgg loo bëggut a loolu yëpp nga nekk ci di wax guddeeg bëccëg pour pexe rek lu bon ak pour mun naa am sax pexe lu baax itam ndax da ngay fexe pour am lu baax booy fexe ba am lu baax booy fexe pour am lu baax itam danga xam ne ci ay pexe rek la ci ay pexe rek nga nekk nekkoo ci dogu gëm gu ma sëkk ne lii laa bëgg te noonu laa bëgg yàlla dafa ma ko bu dogu bu dëggoo ci yow rek te nga xam ne yàlla am na ko yàlla mën na ko ala foog yàlla dina la ko defante waaye su fekkee ay pexe rek nga yaakaar booy fexe itam keneen itam mi fexe mi ñëpp ku ci nekk rek ci ay pexe ngay xëy pexe yoo xam ne lan lay jëriñ bu fekkee dana jëriñ ci borom rek lay dellu su fekkee dana lor itam ci borom rek lay dellu de waaye moom gaal ga te jëri dana ma dox fi ci ñoom fii moo jin fii moo jin ci duus kër ci bali yu nekk ay doj de yàllaa ngi nag tabaxal leen géej goo xam ne gaal gaa ngi ci biir di daw géej goo xam ne duus yi dañoo rëy rëy ba mel ni ay montagne yi nekk ci biir géej gi <clears throat> ba yàlla waxee nag nu ne ko na dugal nit ñi ñëpp di dugg waaye nu amoon na doom joo xam ne yéefar la kanaan dañ koy wax amoon na jabar joo xam ne yéefar la moomu tamit ñaar ñooñu yàlla ne leen yàlla ne noox bu eboo ñu ñu bañ a dugg ci gaal gi ndax dañuy xalaku ndax ay yéefar lañ ba mu duggee ca gaal ga nag ba nit ñëpp dugg ba gaal gi départ wonnadaahu nuuhun nuuh ibnahu doomam ja nuux daldi oo doomam wakkaale ne ko na fi masalin ci dogu wëlis gaal ga fekk doom ji moom dafa daw rek ne moom du dugg ci gaal gi ñu ngi koy wax yaa bunayya eh sama irkab waral maanaa ànd ak ñun wala takun bul nekk maal kayit dina ànd ak way yi de way weddi ñu yàlla de nu wax ma ngay oo doomam naan ko yow sama doom ñëwal tuub gëm yàlla ndax nga mën a dugg ci gaal gi waaye nag moom bañ na nanguwut ma nga dem rek ànd ak yéefar ya de <coughs> xaala mu wax ko moom doomam ja kanaan ne ko saawi xam na ma tàpp ilaa jabalin jëm siw doj yaa si mu niroo dana mu tere ma minel maa yi ci ndox mi de man bàyyi demal rek man maa ngi dem ci montagne yu kawe yi nga xam ne bu ma ci yéegee danañ ma musal ci ndox mi xaala wax nu wax ñeel ko ne ko laa sama delloo ji mu yow ma tey bi namrillaahi ci mbugalam yàlla de tey jii dara du musal kenn ci mbugalam yàlla ku dugg yàlla ku dugg ci gaal gi rek yaa dugg ci mbugalam yàlla moomu de illaa man rahma la rek yërëm na ko illaa man rahma la rek yërëm na ko yàlla de lu dul nag koo xam ne yàlla yërëm na ko koo xam ne yàlla na ko kooku ko mel ni jigéen jooju ñu ne tey léegi yàlla musal na ko ci gaal te dugg ca gaal ga waaye nag dogu gam dogu woon bëgg <coughs> ànd ak <coughs> nuux bëgg mucc ca gaal ga te te ci yàlla la dogu yàlla may ko lim bëgg rek musal ko ci gaal gi ko ci gaal gi ba nga xam ne moom yëgul la xew ca gaal ga de yëgul la xew ca jamono ja waxaale te diggale bay noo maa diggante seen ñoom ñaar diggante yonent yàlla nuux ak doomam ji mu doon waxat al mawju aw duus duus rëy dal di ñëw rek jaar diggante noox ak doom ji dal di sànni doom ji fële fakkaana tam nekk mi neen mu raqi na di bokk ca ñuy ndabar ña de ci ñi nga xam ne lab nañ ca biir géej ga de waxtee la ba nga xamee na nag <coughs> juróom benn weer asamaan saa ngi suuf saa ngi ball ndox asamaan saa ngi sotti ndox ci kaw ndox rek bañ demee nag ba nga xam ne yàlla bëgg naa yeexal gaal yeexal ndox mi wàcce yusufa yàlla dal di wax ak suuf ne ko wakiila waxeek yaa ardu yow suuf iblaayi wan nal maa ak ki ndox sax mi nga xam ne mi ngi génn tukkee ci yow de yow suuf si ndox mi ngay balal mu génn léegi téye ko war na ko bu ko génnee ci waaye asamaan yow asamaan iqlaa yi téyel téyel yow tamit taw bi ngay wàcce de suuf naanal sa ndox war na sa ndox bu ko génneeti asamaan téye sa ndox bu ko wàccee nii rek woo yi da wàccee wàññeef almaaw ndox ma ba mu ko nag yàlla wàcce ndox mi de ndax lii suufam koy naan lii asamaan téye na ko dootu wàccati waxu dee xateef alam lu mbiram xala xala xala xala ko ñooñ nuux ña de yàlla dal di nag eh, nuux ak ñi ko ñi nuux gëmoon ñëpp mucc nañ ci gaal bi ñi nga xam ne gëmuñu woon yàlla àtt na seen xalaku ñoom ñëpp ndox mi xalak na leen de nag ñi ko gëmoon waxoon nañ démb ñu ne juróom benn nit rek moo ko gëm dund bu am dund bu am junne juróom fukki at di oote nee nañ juróom benn nit rek ñoo la gëm ñetti góor ak ñetti seen ak seen ñetti jabar ñu ne déedéet ëpp na loolu lu mat ñeent fukki nit <coughs> ñeent fukki góor ak seen jabar gëm nañ ko ñu wax loolu am na ñu wax ne itam ñi gëm yëpp yonent ci Aadama Noox yonent ci mën na ñi ko ñi àndoon moom yëpp mën na ñaari téeméeri nit yoo xam ne àndoon nañoo moom ca gaal ga ba mu ko defee nag ba nga xam ne nekk nañ ci gaal gi yàlla aaya ne bu sëy bu ñu def dara ba ñu wàccee nag ñetti yonent ci Aadama Noox amoon na ñetti doom xaam saam ak xaam ak yaafis ñetti doom yooyu la amoon ñetti doom yooyu gannaaw gi xeet yi am ci àddina bi yépp ñoom ñetti doom yooyu ñoo leen jur ñeneen ñi nga xam ne àndoon nañoo ñox ca gaal ga ak seen jabar ñooñu dañoo jërmér amuñ ay doom ñetti ñii rek ñoo am doom de saam ak xaam ak yaafis saam boo demee moo jur ci nit ñi lu ñuy tànkee lu ñuy tënkee arafa lu ñuy tënkee arafa saam moo leen jur arafa mooy arab ruum faris arafa ruum arab faris ñooy arafa ñooñu saam moo leen jur xaam euh, jur lu ñuy tënkee sadaka moo jur ñooñu sadaka mooy sudaan ak barbar ak Égypte ñooñu ñu ci ci xaam nañ bàyyeekoo yaafis moo jur li ñuy tënkee siitu siitu mooy ñuy xeet ñuy tuddee saqaaliba ak ñuy tuddee yaajuuja ak maajuuja ak ñuy tuddee turk ñooñu eh, eh, yaafis moo leen jur ba noonu la doom yoonu gannaaw loolu nag di xew yëpp ci ñooñu lañ bàyyi koo de moo tax ñuy wax ne aadama mooy ba nu mooy aadamam de kon la ñuy wax dañu nekkoon ca gaal ca gaal yi nuux ga ñaari téeméer damaa juum waaye juróom-ñett fukki nit dañ de juróom-ñett fukki nit ñee ñeent fukki góor lañ ñeent fukki jigéen lañ juróom-ñett fukki nit boo ci génnee noog ak ñetti doomam yi ak seeni jabar dafay des euh, euh, juróom-ñaar fukk ak ñaar yoom ñaar kon ñaar yooyu yëpp ñoom juruñ gannaaw yonent yàlla nox dañoo jërmal doomi nox rek ñoo jur de mu ne doomi nox ji nag war naa daa xawoon mu xam nox ibnahu doomam te mooy kanaan ne ko noonu si magerin si dogo wala gaal ga moom dafa wax ñu ne dugg si gaal ga de ñu an koy oo yaa bu ne yeewal si doom sama irkab waral maanaa ànd ak ñun de yow sama doom tuubal ñëwal tuub te bokk ñun ndax nga mën a bokk ñun ci gaal gi rek ndax te wala a ah, wala takun ma al kaafiriina moo lay xamal ne mu ko ne irkab maanaam daf ko ne ñëwal gëm yàlla waaye waxu ko ne ñëwal ak sa kéefa dugg ñëwal gëm yàlla naka mën a dugg ci gaal gi moo tax mu ne ko wala takun te bu nekk ma al kaafiriina ànd ak way di ña yàlla xaala wax mu ne ko moom doom ji ne sa aaw yi dana ma tàpp ilaa jabalin jëm ci doj yaa si mu ngi moom dana mu tere man mi nan maa yi sa ndox ma de dinaa dem tàpp ci ci doj woo xam ne ndox mi du ak si ci man de xaala mu ne ko laa sama ngelaay li mu cël yow ma tey nga ne laay ci mbiram ci mbiram ci mbiram mbugalam yàlla illaa ma nga xamante ne que yow na ko yàlla de waxaale diggale baynahuma diggante seen noo ak doom ja al mawju aw duus fa kaanata nekk mi nen moom rek na ca way rab ña de ba mooy wax ak moom rek duus su rëy ñëw jaar diggante noo ak doom ji daal di koy labal moom ca géej ga waxee la waxeef yaa ar néew suuf ibrahima wannal maa kee ndox sa mi ba mi ballu tukkee ci yow de waya samaaw yow asamaani yi teel sab taw daa war yi da taw wàññeef almaaw ndox ma wax ko dee taxa tefala muy biram xalak ko um tiñoo xe was tawat taxee moo gaal ga di nga xam ne ci la nit ñi duggoon alal juudi yi ci doj bu ñuy wax juudi juudiyu juudiyu ñu wax ne benn doj la boo xam ne ma nga ca mawsil ca Bagdad ca Irak nee nañ foofu la foofu la nekk de waaye comme ni ma leen ko waxee léegi nit ñi léegi nag nit ñi seen euh, gëstu yu bëri yeeg seen seen ñàkk a dal gëstu lañ ba gis ne daal ñetti balaat yoo xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi woote ne fa la gaar ga nekkoon am na sax ñu wax ne am na ñu àgg bay ne gis nañ ay ay jéyit ci jéyiti bi gis nañ ko ca Turquie boo boo antee wax ko ma xàkk mi na in qaala wax wakkiloo xef boo doon xarkare bil xaw mi ñeen ñi ñu zaalimiin ñu dawee xéefar yaa ñi ñëpp koo xam ne da ngaa xéefar rek xala ci nga nekk de xéefar dafay xalal ko rek fii ci naa daa noo war naa daa taxoo noo xam noo xam boobu boromam noo xam nag ba mu demee ba génn sa gaal ga gaal gi teer nit ñi wàcc am jàmm wa naa daa woo noo xam noo xam boobu boromam fa qaala mu wax rabbi borom sama inna ibni naka doom sama kanaan min na di aji bokk la ci ñooñ sama yow yàlla sama doom ji ñuy wax kanaan kenn la ci sama ñooñ way na waa daka naka dëxal sa alxaqu mooy aji dëggu de te di nga dëxaloon ne dag ma sole maag sama ñooñ loolu dëgg la kenn mënu cee kenn mënu cee tekki dara wante wax ka ma fàkki me ne yaa gën jàpp xereñ yi way xereñ ña kuy xereñ yaa gën a xereñ donc ko defee loolu la yàlla wax noo xaala wax yàlla ne ko yaa nooxo yow noo innahu naka moom lay sa déet muy bokk mi na dëkk te ñooñ sa yey mucc de sa doom yooyu bokkut ci ñooñ sa ñooñ yi nga xam ne dañuy mucc ci ndox mi de ndax dafa weddi sa diine moom ak yaayam walla moom ak sa benn jabar innahu nakam luy mbit tey mbit innahu naka luy naka luy mbit tey mbit amalun jëf la xayru saalihin ju du mu aji xiwe xiwén de mu ne ko na xam sa doom yooyu bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a mucc ndax sa doom yooyu dafa xalaku laaj bi may laaj nag sa doom ji jëf la yoo xam ne du jëf ju xiiw ndax man di ma def noonu rek laa war a def kon nag nga ñëw gannaaw su ma def ne dañ ciy laaj da ngay laaj rek loo xam ne xiiwut de am na ñuy wax na na ko moom doom ja amalum jëf la xeeru saalihin ju du mu aji xiiw ne doom ji ci boppam moo nekk doom ju xiiw ndax bon doom yi njaaloo la wala déet déedéet du doomi njaaloo ndax doomi jabar yonent lu mu jubadi jubadi itam du ci boole njaaloo bon doomi yonent yàlla noox la waaye laaj gi may laaj nag naan na sa doom ji loolu mooy jëf joo xam ne jëf ji ñaaw de waroo koo def de ndax man yàlla li mu war a def rek li ma war li may def rek noonu la voilà sel nii bu laaj ma nag mbon moo lay woon ne waxam jëfam ji wax laaj jëm ko laaj lay wax ne moo ñaaw ndax lim ko tegal nii fala te nii bu laaj ma maa lay seet loolu nekkul la ko ñeel la bañ a musal sa doom ji li tax ma bañ dugal sa doom ji la ca nekk bu ma ko laajte inni ñaka man ay lu ko dana ma waadeel dana ma ragal loolu la an tëkku na bu ko nekkat minel jaay dina ca way wéet di ñe yàlla ci laaj ma ci la ci minel jaay dina ca way wéet ñe de di ma laaj loo xam ne xamoo ci dara loolu bu ko defali rek xaala mu ne moom noo ma ngay tuub rabbi yow borom sama inni yanaka man awulu dana ma muslu bi ko ci yow anas la ci bu ma laajat la maa lay sa lii loolu de di ma bii ci moom it mun xam-xam maa ngi lay muslu yow yàlla yàlla bu ma téerati ma di la ñaan wala ma di la loo xam ne aw ma ci benn xam-xam de way laa tax fir neen jéggalu la li ñeel ma watar xam nii te nga yërëm ma akum dana ma bokk mi ne xaasiri na ca way perte ña de <clears throat> mu ngay jéggalu yàlla nag yow yàlla maa lay ñaan yàlla nag ma jéggal yàlla bu ma nag tooti ëllëg ma lay laaj loo xam ma ci dara ndax bu ma lay laaj ëllëg loo xam ne xaw ma nu xaw ma ni ko tëralee lan la bu boobaa damay bokk ci nit ñi nga xam ne damay perte te bëgguma bokk ci ñi nga xam ne perte na de bon ca yàggi yàggi jamono la yàlla tontu nit ñi nga xam ne danañ feeñ gannaaw gannaaw ñu weesu dana feeñ ci nit ñi ñoo xam ne ala fokk la nit ñi la daan waxee daan ko gisee danañ ci delloo ñoom seen xel di seet ndax noonu la woon wala du noonu su ko defee loolu amal nañ ko ay lay yu bari boo demee tëral nañ ay yoon ne bii mooy yoon xam-xam yoo xam ne ku ci jaar boo àggee ci résultat résultat boobu dëgg la su ko defee tëral nañ ay yoone xam-xam yu bari bëri tuddee ko ay tur yu bëree bëri épistémologie ay baat yu demee noonu yëpp dañ koy créé créé nañ ko pour tëral ko ne mooy Euh, bagage yi nga xam ne kuy gëstu xam-xam foofu nga war a jaar pour àgg ca dëgg-dëggi xam-xam ba su fekkee gëstu jaaralewoo ko foofu bon duñ ko boole ci ne gëstu bu sérieux la ndax bu boobaa nekkul loo xam ne c'est académique jaaralewoo ko académiquement moom fi nga xam ne fi mu ne académicien yi tëral ne lii mooy gëstuwaay xam-xam boo ci jaaru doo mën a indi rek ak lum dëgër dëgër du xam-xam de su ko defee moo tax nit ñi nit ñi jamono yi mi ngi wéy mi ngi mi ngi yaatu ñaata ñaata ñaata jam ñaatay jamono la àddina bi mel nii mu mel ay mbindeef nekk ci ay mbindeef yu wuute ay nit ak ay rab ak ay njaaxal ak ay jineek lu nekk mi ngi ci biir àddina bi loolu ba mu amee léegi ñaata jamono la ñii ngi nettali ñeenti milliards yi at la ñi ngi nettali milliards ñii ngi nettali ñu ngi seeni gëstu mu ngi leen di waxe nu leen neex fa ñuy dëgg di gëstu foofa lan la fan la ak lan la su ko defee ñoom tamit lu nekk rek tëral nañ ko ay bunt yoo xam ne bunt yu tëju la bunt yu xat la tuddee ko bunti ay xam-xam comme baat yooyu ñu wax léegi léegi euh, euh, ne mooy yoon yi àgg ci xam-xam boo jaarul ci baat yooyu boo jaarul ci tëral yooyu nga xam ne moom la académiciens yi tëral ne ku bëgg a àgg ci euh, question ku bëgg a àgg ci réponse historique na nga jaar ci moom ndax nga mën koo xam su ko defee nag ñu ñu séddale jamono yi ay xaaj tuddee ko jamono yoo xam ne ay jamono jamono nangam jamono nangam jamono nangam ba agsi ci homo homo spice eh, ah ba agsi ci homo sapiens mooy ñun ñii ñoo mujj feeñ bañ feeñeeg léegi kañ la waaye njëkk loolu njëkk ñun ñi nit ñi amoon lañ amoon ñu ko daan tuddee nit pour ñoom doonuñu woon ay nit ñuy taxaw nit ñi daan doxaw seen ñeenti tànk seen ñeenti loxo la seen ñeenti tànk la nit ñoo xam ne dañ daan di am geen comme ni ko golo yi amee noonu la nit doon dem boo ko defee épec bu ñëw rek nit soppeeku nekkaat leneen nit soppeeku nekkaat leneen ba ba muy agsi ci nit ki nga xam ne taxaw na ak ñaari tànkam am xel di xalaat di gis di ràññee nit eh, eh, mooy nit ku bees kii mooy ñun ñi toog nii waaye njëkk loolu nit ki amutoon de loolu yëpp dañ koy bëgg a firi bëgg a fiwee jamono ndax ñu ne ñu ñu ñu yombalal la ko pour nga gën koo mën a dégg gën koo mën a xam waaye dëgg-dëgg dañ laa dañ laa gën a jafeelal jamono rek ndax nit nga bëgg ko indi feneen foo xam ne yàlla wax na ñu ne nit jaarewut foofa nit fii la jaaree man yàlla fii la jaaree nit ba indi ko nga ne wax boobu nañ ko teg fa fële du waxi dara waxi waxi xam-xam waxi science waxi xel loolu mooy wax te loolu moo xew ñu ne bon nag képp koo xam ne daf ñuy wax wax yoo xam ne waxi yàlla waxi euh, les livres saints loolu yëpp ay waxi euh, nit nit ñu matu ñu woon rek la nit ñi nga xam ne matuñu woon ñoo doon waxee noonu léegi nag nit àgg na ci xel ak xam-xam ak gis foo xam ne romb na romb na foofa foofa ñu daan waxta foofa diine daan waxtaanee ak nit nit nit romb na foofu léegi ci jamono bi waaye loolu yëpp itam ay tàndale rek la amul ci dara loo xam ne ne nañ lii moo tax li ñuy li ñuy wax dëgg la amuñ amuñ ko dañuy tàndale rek tàndale mën naa tombe mën naa bañ a tombe tambat tandale nañ tandale nañ yu bëri mu tombe waaye tandale nañ lu ëpp li li li nga xam ne tandale nañ koy te amuñ ci résultat loolu itam lu bëri la moo tax jamono euh, nu nit ñi di gën a avancé jëm ci kanam rek complication àddina di gën a feeñ ndax lan yàlla moo bind àddina te nee na moo koy doxalee nu ko neex kulle yawmin huwa fii chaine feeg àddina di tukki bët bu set rek jamono bu nekk rek ak li nga xam ne moom la yàlla di feeñalal jamono booba jamono yii ñu toll jamono science la nañ déglu scientifique yi ñooy sange àddina bi ñooy wax ñooy joxe xam-xam li ñuy wax moo gën a moo leer ndax ñi ngi am ay moyen yoo xam ne ñi ngi ciy déggalee yi ñuy wax moyen télévision yee appareil yeeg yooyu yëpp ñu koy sukkandiku ngir dëggal nga xam ne moom lañu ñuy waaye yooyu yëpp daf fee nekk rek daf fee nekk am na ite xam-xam génne ko ba nit ñi jëriñoo ko waaye doonul loo xam ne ñoom dañ koo dañ koo fent ci seen xel indi ko def ko déedéet loolu amul kenn mënut a fent ci sa xel dara génne ko def ko man ngaa fent ci sa xel dégg man ngaa fent ci sa xam man ngaa fent ci sa xel leeral loolu yëpp mën nga koo fent ci sa mën naa am ci sa xel waaye amal lii maa ko amal loolu moom xel mënu ko de kenn mënu ko yàlla rek moo mën a amal de li yàlla amal ba ne ba mu nekk fi nag may na nit ñi ay xel yoo xam ne yooyu fi nekk yëpp nëbbu ëllëg dina ñëw doomu aadama dina ko génne ndax yàlla génne na ko njëkk ñu àgg ci jamono bi nga xam ne moom la ñu tuddee jamono lumière jamono leeral ñu moom la tuddee suñu jamono bi ndax boroom xam-xam yi nga xam ne wax nañ ne ay borom xam-xam la te ñu ngi tasaare ñu ngi tasaare leer ci seen wax ñoom mu ne nag seen jamono jamono bi moo tax mu nekk jamono boo xam ne jamono bu compliqué la jamono bu jafe la euh, wax rek ak nit du dara bu bu la nga wax ma ma gëm su la ma bañ a gëm su ma yoon nekku ci su ma gëmee am naa lu tax ma gëm su ma gëmut itam am naa samay lay yoo xam ne moo tax gëmuma kenn ku nekk am ñi ñi gëm ñi gëmul yëpp ñi gëm am nañ lu tax ñu gëm ñi gëmut itam am nañ loo xam ne moo tax gëmuñ te am nañ seeni lay yoo xam ne lay yu taxaw am na ay nit yoo xam ne jamono bii yàlla yàlla amut rek lañuy wax yàlla amut yàlla amut am na ay nit ñoo xam ne ay borom xam-xam yu mag yu fixé ci xam-xam ñoom tamit seen liggéey yëpp mooy dañuy seet fu yàlla nekk ba jàpp ko indi ko ñoom tamit ñoom xam nañ ne yàlla am na waaye fu mu nekk nañ ko seeti nañ ko indi fi mu ne ñu ngi def seen xam-xam yu bëree bëree bëree bëri ak moyens yu bëree bari ci xam-xam ñu ngi koy tëral ci euh, benn centre boo xam ne ñu ci diggante France ak Suède ah CERF boo demee centre boobu lu xam bu la rek ma nga foofa ay boroom xam-xam yu mag machine yu la réer rek ma nga foofa ñooñu yëpp seen xam-xam seen gëstu mooy fu yàlla nekk rek bañ jàpp ko indi ko moom la ñuy seet ah ñooñu itam ñoom xam nañ ne yàlla am na ñii itam yàlla amut benn waaye dafa ñëw ci ay nit ne leen man shérif la sëtu yonent la ñu gane la ko lool defal ko teraanga lool sa sëtu yonent mu dem dal di ci moromam di waxtaan ak moom ne ko man de damaa dem rek ne leen sëtu yonent laa mais gis ngeen liñ ma defal mu ne ah, ah mu dal jël xelaat mu dal jël xelaat mu moom xelaat ca suba sa mu ñëw ca nit ña ne leen man doomu yàlla la ñu ko ah ñu ne ko waaw man doomu yàlla la ñu ne ko waaw mu taxaw nit ñi dal di daje dal daje ne doom yi ki daan lakk suñ kër yi mi ngi nii ah. doom yi ki daan rey suñ doom yi mi ngi nii <laughs> doom ki daan def na mi ngi nii yéen ñëpp ñëw leen ñu fay ci moom de bu ko defee loolu bu ko defee nit mooy nit rek hmm? dina wax yaa yow noo ko wax bi wàccel bi salaatin ci mucc ci musal ak ak ak nuyoo min na mut kef yéen barakaati nag ak xiw aleyka ci waala umumin ak teel yi nga xam ne man maa kaa ji nekk la ñoo yow ci gé ci gaal gi de yow noo wax léegi nag wàccal gaal gi yow ak nga ànd ak wa umumum ak yeneen kuréel yoo xam ne sana ma teew na xam ne ñoo yóbbal leen ci àddina su ma yema suum topp mos leen topp jot leen min naa tukkee ci ñun azaabun nubal alimun mu daa ji tat loolu rek wàcceel yow gaal gi noo wàcceel ak nit ñi ak nit ñi nga ànd ak yoo xam ne nag yéen nit ñëpp yàlla bind na si ñoom musal na leen waaye yàlla bind na ci ñoom ay nit ñoo xam ne dinañ ñëw ëllëg ñoo ñu itam xéefar dal di feeñaat ñu doon ay xéefar bu ko defee ñooñu tam yàlla nee na dina leen mosal ci àddina li ñu bëgg mos ci àddina ci neex neex rek gannaaw bi nag mbugal rek boo leen cee fekk de tilka yooyu lay solo yooyu lay kéemtaan mineen bàyyil rey bi aji nekk la ci solo si fàddu yii ñu lay nettali yépp lu fàddu la yow xamoo ko fekke woo ko nuuxyaa danañu wax yu koy lekk jëm ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa kunte nekk la moom taalamu waa di xam ko ante yow wala ko ma ko du ay nit lii mu lay wax yëpp xamoo ko woon seen nit ñi xamuñ ko woon man maa la ko xamal de min xam li ci njëkk haasa ji ne alquran lii xewoon na njëkk alquran bon nag boo ko xamee man yàlla maa la ko xamal ci alquran yi may wàcc ci yow de su la nit ñi gëmul nag fas bir muñal yow muñal rek buñ la gëmee baax na buñ la muñu tëm gëmal rek inna laa xibata naka muy gën a sant lil muttaqina ñaan na way ragal yàlla de léegi yow muñal rek ndax loo mën di luñ mën di def itam na nga xam ne mujj gi nga xam ne mooy mujj gu texe mu yëg dugg aljanna mu yëg ngërmande yàlla ñi ragal yàlla rek ñoo koy am yàlla insha allah boole de wa ilaa aadin ñun de yónnee nañ jëm ci aad axaawum mbokk seen ci jiit huudan huud yàlla yónni na ci jiit bu ñuy wax aad yónni na ci ñoom seen mbokk huud de wut ba mu ñëwee ci ay xaala mu ne moom xóo moom xóot yaa xaw mi yéen nit sama wabudullah wéetal leen ak yà wéetal leen yàlla ak jàmm wéetal leen yàlla bi ci yàlla yuuf ci li muy xiir asamaa asamaan muy aji taw aleykum ci yéen mi daraaran ci dotti de bu ngeen nangu yaa bu ngeen nangulee dellu ci yàlla tuub yàlla dina leen tàggatal asamaan wàccee leen ndox moo xam ne dafay dotti rek nga ju ngeen jubale ci seeni i mbay ak yëpp waya waya zidkum tam dolli leen quwwatan kattan ila quwwatikum jëm ci kàttan seen ci ay doom ak xalal de bu ngeen gëmee yàlla nangu yàlla dana leen dolli dana leen wàcceel asamaan ndox dana leen dolli kàttan dana leen dolli xalal dana leen dolli doom wala te wala waaye bu leen dëdd mujj nii na mbit bu ngeen di wee bokkaale ak yàlla de loolu la yàlla wax bu ma toppee nangul ma li ngeen soxla ci àddina yëpp mooy lu ngeen dundee ak lu leen àggali ci loolu ngeen di dundee bu ngeen ko amee lu ngeen koy jëriñooyee loolu mooy seen soxla ci àddina asamaan si na leen tawal su si na leen jox dangeen ngeen am alal da ngeen am njaboot da ngeen am ay doom lu nekk da ngeen ko am su ngeen ma toppee waaye loolu jamono yi ñu toll am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi xalaat ndax am doom bokk na ci moral wala déet ndax indi doom bokk na ci moral walla déet am na ñoo xam ne gis nañ ne bokkut ci moral ndax da nga indi koo xam ne ba nga koy indi d'accord waxtaan waxtaan woo ak moom ba mu d'accord ne dina ñëw yow yaa indi doom boo xam ne da nga koy indi ci ay malheur rek dafiy fekk ay feebar ay ñàkk ay wayso ay coono rek dafiy fekk nga indi ko fi bon nag bokkul ci ay jikko yu ay jikko yu kawe ngay indi ci àddina bi doom joo xam ne ba nga koy indi déggoo déggoo moom ba mu nangoo ñëw waaye yaa ko fi indi noonu rek am na ñuy commencé di wax loolu ndax bokk na ci moral am doom ci àddina bi gannaaw boo xam ne yow ci sa bopp xam nga àddina bi jafe-jafe boobu nag nga ci indee keneen dañoo foog ne sax xam-xam bu bees la waaye du xam-xam bu bees lu yàgg la am na benn shaayir bu yàgg ku ñuy wax euh, abul alal maari mu ne haada ma jëna alayya abi walam ajni ala ko mu ne buñ ko suulee nañ ko bindal ci bàmmeelam ne haada ma jëna alayya abi walam kooku yàgg naa gis ne indi doom ci àddina bi dëppoowut ak ay moral bon euh, wax waxin bi rek mooy bees waaye naka jekk nit nit ki nit ki rek nit ki fi nekkoon rek moo fi nekk di weddeeg di xalaat nu ko neex rek mu xalaatee ndax yàlla may na ko xalaateel lu la neex kenn du la kenn du la wax ne bul xalaat waaye nag li ngay xalaat nag responsabilité yi ci teewu bu ñëwee nag nanga nga ko accepté parce que yaa ko nangu woon démb waaye maa ko xalaatee nii maa ko defee nii boo lëgee nga naan lu tax lu tax lu tax lu tax lu tax lu tax lu tax booba jeex na rek kenn dootu la faale mu ne wala te tawaloo bu leen dëddët mu jël mi ne bu ngeen di way bokkal ak yàlla xaalu ñu wax ko ne yaa wuudu yow wuudu maa jiitanaa nga ñu bi ba maa jiitanaa dikkee wula dikkeeti la ñu bi bay na tin ciw lay woo xam ne dana dëgëral li ngay wax yow huut wax yi ngay wax amul dara foo ko tëral dëggu tër tëddut fenn du waxi dara wa maa nax nu déet ñun sax bi taaliki ñuy bàyyi aaleetinaa yàlla sunu yàlla yu ñu fekk ñuy jaamu suñu ñu fekk ci suñuy bàyyi si yàlla yooyu sa wax ji mën ta tax ñu bàyyi ko de an xawlika ci ay wax sa ñi say wax rek ñu bàyyi suñu yàlla yi duñ ko def de wa maa nax nu déet nun bi ñu sax gëmuñ la boo loo mën ta wax itam duñ la gëm in naqulu déet ñuy wax ci say affaire illaa talaaka ndara jot na la sib baaxu aalihatinaa lenn yàlla sunu bi suuñ ci lu ñaaw de dañuy wax ne rek suñu xàq yàlla yi moo la dal parce que yaa ngi leen di xas ñoom tamit fayeku nañ nga dof nii di wax waxi dof yi loolu rek la waaye waxoo dara xaala mu nag ma ngi leen di booleeg yàlla xaala mu wax indi naka man ushidu tamit seede leen indi naka man bari un aji dañ laa bi maa tushrikuuna ci la da ngeen ko ci la da ngeen bokkaale koog yàlla de seede leen yàlla seedeel ma yéen tamit seede leen ne xërëm yi ngeen di jaamu man xam duma ma ci yéen bokk ma ci te du ma ko def de min duuni yi ku dul yàlla fakki duuni fexeel leen ma nag su fekkee loolu rek la fexeel leen ma lu ngeen mën di pexe ngir alak ma waaye seen xërëm yi du ko jaamu te du ma jëñ di leen wax ne duñ ay yàlla ay xërëm rek lañ fakki duuni fexeel leen ma jëmeen boole seen yéen nag ak seen i mbir yëpp dajaleen ngir fexeel ma lu bon su ma laatum lu topp muñal fi leen ma te bu leen ma muñal de lépp lu ngeen bëgg a def rek ci man def leen ko pexe bu ngeen am ci man def leen ko te bu leen ko nëbb te itam bu leen ma muñal de lu ngeen man rek def leen de ni naka man tawakkaltu dëxërlu naa alallaahi ci yàlla man naa ngi dëxërloo yàlla rabbi borom sama wa rabbikum ak borom seen de man maa ngi de delloo yàlla mi nga xam ne mooy seen borom di sama borom maa min daabatin déet aji yukkat illa huwa moom yàlla aaxizun aji jàpp la moom bi naasiyatihaa man yàlla moomu nga xam ne lu nekk loo xam ne bind na ko yëpp mu ngi ci loxo yàlla de lim bind yëpp lim bind yëpp yëpp a ci loxoom càmbargaay lim bind yëpp ñu ngi ci loxo de sa mbarg mooy karaw gi nekk fii ci kanam nit ku la ku la jàpp foofu rek jekku na la ku la jàpp ci sa karaw karaw ak jé xëcc la rek jeex na inna rabbi naka borom sama la salaatin aji nekk la mu ci yoon mustaqim mu daa ñu jub de yàlla moom ci yoonu maandu ak ci yoonu dëgg rek ci la nekk ci lay xool nit ñi fayin tawallaw ndem dëdd ngeen bañ a sama woote faqad awlaqakum man jotal naa leen maa surtout la yónneef na ma bi ci moom iré mu jëm si yéen su fekkee bañ ngeen a ñëw nag man li ma war def naa ko yàlla wax na ma leen naa ñëw jotal leen ñëw naa jotal naa leen su ngeen gëmee yéen la su ngeen gëmut tam yéen caag de voilà wa yastaxlifun dana wuutal rabbi borom sama qawman aw nit gayrakum ñu du mu yéen de bu ngeen bu ngeen bu ngeen demee bu ngeen bañee yàlla dina leen xalak te dina fi indi ñeneen nit ñoo xam ne duñu yéen wala tadurrunahu lorte leen ko moom yàlla ci bokkaale ak ngeen di bokkaale ak moom shay'an dara de bokkaale ak ngeen di dara ci dara jaam ak kawem ak maa xam inna rabbi naka borom sama hafizun aji fuuglu la mu ala kulli shay'in ci lépp laf de sama borom lépp loo xam ne bind na ko amul dara lu génn ak fuugloom lu nekk mu koy gis de wala maa jaa ba dikkee amrunaa mbiram mbugal suñu ci ñoom na jey naa ñu musal huudan huud ba nga xamee ne dem nañ nag ba ñëw nga xam ne xalak moo dese ci ñoom yàlla musal yonent yàlla huud ci loola de wala yi naag ñaa ñaa amanu gëm nañu maa waan nag moom bi rahmatin ci njubal min naa gu tukkee ci ñun de ñi nga xam ne nag ñoo toppoon huud ak ñi ko toppoon ñëpp yàlla musal na leen ba mbugal ma ñëwee ci yërmande ci yërmande gëm leen yërëm ba teg leen ci kaw yoonu njub de min na bi rahmatin ci yërmande wala ci ci njubal min naa ko tukkee ci ñun wana jee naahum ñu musal leen min azabin ci mbugal xaliidin bu dee aji tat yàlla dina leen musal ci mbugal moo xam ne mbugal mu tat la de wa tilka aadun yooye lay wa tilka yooye lay jeexital aadun aad la yooyu wa tilka yooye lay ndesit ndesit yi yooyu ngeen gis yëpp aadun aad la jaxadu wet nañu bi ayati rabbihim ci ci kawteefi ay ci kawteefi borom seen de waa saw tañ mooy rusulahu waay yonentam ah jëyiti aat ngi noonu gannaaw bu leen yàlla seen jëyit jaay ngi noonu ngeen di jàkkaarloog ñoom ñoom bañ weddee yàlla yàlla daf leen a dañoo bañ weddee mooy yàlla weddi yonent yi yàlla daf leen a ñoom ñëpp wa tabawu ñu topp ñoom xaat ñooñu am ra kulli jëbbeerin mbiram jëpp aji mbër képp jëpp aji mbëru ba ko defee ku la gën a mbëru rek ngay ñëw moom ngay topp waaye toppuñ dëgg toppuñ yàlla de ani din ko ci ku de ku de aji dëgër dëgër bopp de topp mbër mbëru moo xam ne dafa dëgër bopp lu ko neex mën na ko wax ci nit ñi yàlla tàggatal na ko xol nit ñi ba lu lu wax nit ñi rek ñu nangu ko lu sant nit ñi rek ñu nangu ko parce que noonu la leen yàlla tàggatee pour moom su ko defee nag moom mu dal di nekk mbër mu rëy ba ñemee taxaw ne man maa yàlla comme firaw na taxaw ne man maa yàlla am ñoo xam ne taxaw nañ ne yàlla xamul firaw na sax tane na ndax nangu ne moom yàlla am na waaye ki taxaw nag moom ne yàlla amul kooku kenn gënu koo wo yow toftaleen fi aajir dunya si àddina ji leen laanatan e, sori yàlla yërmandeem de fii ci àddina yàlla sori na leen yërmande yàlla sori leen nit ñi wa yowmal qiyaama ci pencam yàlla itam yàlla dina leen sori yërmandeem yàlla dina leen rëbb ci kaw seede nit ñëpp seede yàlla rëbb ñi nga xam ne dañoo xalkale de yéen mbooloom àdd yéen mbooloom pen pencam yàlla mi yëpp seede leen ne diw doomi diw ca dëkk sàngam xalaku na dem na safara yéen mbooloo mi yëpp déglu leen diw doomi diw ca dëkk sàngam te na dem na aljanna bu boobaa àllaaxira yëpp yëpp yàlla dana ko feeñal ci ci kanam mi defam yëpp alaa inna aadan naka aad kafaru wet nañu rabbahum borom seen aad moom dañoo weddi seeni borom ala dëgg boo doon xalkare e, li aadi li aad ñi xal na aad xaw mi awtini ci yonent yàlla wut <clears throat> yëpp ñoom tamit yonentu boo xam ne wax nañ ne yonent bu ñëw say xeet weddi la bañ xalaku fooy dem fooy dem yow yonent bi ñu ne ci taarix mooy nettali nee nañ dañuy ñibbi ñoom ñëpp màkka foofu la ñuy nekk di jaamu yàlla ba seeni bis jeex nee nañ yonent yi ñu alak seen xeet noonu la ñuy def benn yonent rek moom lañ alak xeetam yónniwaat ko ci beneen xeet mooy yonent yàlla Shuayb yónni nañ ko ñaar yoon ci ay xeet waaye yonent yi yëpp ku ci sa xeet jeex rek dangay dem Makka nee na fa ngay nekk di jaamu yàlla ba yaa ñi nga xam ne gëm ngeen fa ngeen nekk di jaamu yàlla ba demal janna rek hmm? Hmm? way laa samuud a ñun de yónni nañu jëm yónni nañu jëm ci samuud wenn xeet la axaaw mbokk seen saale am saale yonent yàlla saale nga boobu moom itam yàlla yónni na ko ci xeetam ñooy samuud xaala mu wax moom yonent yàlla noo euh, euh, saale yaa qawmi yéen nit sama obudullaha wéete leen yàlla ak jaamu maa lakum de di ñee leen mi ñu laaj yàlla xayruhu julul moom de woo moom yàlla moomu anshaakum sos na mu leen mi na labdi ci suuf ci bind seen baay bind gim bind seen i baay ah bind gim bind seen baay aadama gannaaw aadama yéen ñëpp ci ngeen bàyyee ko bon yàlla moo leen sos ngeen tukkee ci suuf de wa samalakum mu dund loo leen fiyaa ci kaw suuf dal leen bàyyi nag ngeen di dund ci kaw suuf ba pare di dundal suuf de lépp loo xam ne dana dundal suuf yàlla may na leen ngeen di ko def mbay ak tabax ak yëpp yéen a koy def ci kaw suuf de fastaxfiru yëgalu leen ko suma bu topp dellu leen ilay jëm ci ñoom jëm ci moom ci topp ko inna rabbi na borom sama xaribun aji jege la mu seeni aji jege la mu leen mujibun aji dégg la mu seeni ñaan de aj guyu la mu seeni ñaan de xaalu ñu ne ko yaa saalihu yow saalihu kat kunte nekkoon nga fii na ci ñun mar ji woon di kuñ yaakaar di ah yow saalih yow nekkoon nga xale buñ yaakaar bi ñu ngi yaakaar eh, xale boo xam ne boo màggee da nga doon ab sang nga ñëw di ñu indil wax yi dof yi yow de tas nga suñu yaakaar de xam la ci njëkk lii la njëkk bi ngay waxal lii daal eh, njort bu rafet amoon ci yow de nga ñëw di ñu wax waxi dof yi atanaana da nga tere ñu an naa bu doobu ñu jaamuwaat maa yaabudu la jaamu na ko abaaw naay bàyyi sunu ci ay xërëm nga ñëw du ñu aaye naan xërëm yi seen bàyyi daan jaamu bu leen ko jaamu loolu ñun mënuñ koo dégg de da dof rek waaye na naa naka ñun la fi shakkin way nekk lañu ci sikk mi matta doona ci la nga ci la da nga xooñu ilay jëm ci moom de ci wéetal yàlla de ñun li ngay wax sax gëmuñ ko xamuñ sax ndax dëgg naam déet wéetal eh, yàlla benn la loolu ci wopp kan lay dugg yàlla yu bëri yii àddina bu bëri bii nit ñu bëri ñii nga bëgg jox benn yàlla loolu waxi daf la rek ñun duñ ko gëm de gëmuñ gëmuñ sa wax ji te dañ koy sikk de fii sekkin ci sikk muribin gu daaji tàbbal ci sikk xemul ci sikk rek waaye sikk goo xam ne daf lay tàbbalaat ci beneen sikk mooy boo xasee commencé sikk rek yàlla ubbi la bunt yoo xam ne waxtu wu nekk rek da ngay gën a xóotu ci sikk soosu foog na nag yow yaay yaa yaa am xel fekk dañ laa dàq bu yàgg te yëgoo ko de xaala mun a mu yéen ni sama raytum solo te leen ma in kuntu nekk naa araba yi ñettiñ ci ciw lay min rabbi mu tukkee ci borom sama waataani mu jox ma mu tukkee ci moom rahmatan ak ak ak ak yonent fa man yansuru nii anaka dana mu tere ma min allaahi ne mooy naa ko yéen ni nit ñi li ngeen bëgg su def naa ko ànd ak yéen bu ëllëgee bu ma yàlla jàppee kan moo may musal ci moom kenn du ma musal ci moom de xamante si du ne nii doo li ci leen ma ngay la ak perte rek yéen seen wax ji daf may indil rek daf may dolli ay ak réer ak perte daf may eh, réer ak perte rek gen ma bëgg a dolli te loolu ban bëgguma ko de waaye yàqoom yéen ni sama xaasi yi lii de naqatulaayi gileem ak yàlla la lakum yàlla aaya tan di kawteef de lii gileem ak yàlla la goo xam ne yàlla moo ko indi ci yéen mu nekk kawteef fasaruha bàyyi leen ko taakulu mu lekk fi di ci suuf si yàlla yi ci suuf si yàlla si wala tama suuha bu leen sot ko bi suuyin ci lu ñaaw de mu ngoog gileem gaa ngoog yéen ko doon ñaan kéemtaan kéemtaanam ngoog gileem a ngoog ñëw na ci yéen gileem ak yàlla la gileem googu nag bàyyi leen ko ci seen biir boo legee bu tayee mu naan ndox yi ndox yëpp boo lëgee mu jox leen meew bu tayee ngeen naan ndox mi yëpp boo lëgee ngeen jox ko moom tamit mu naan de fa yàqu ko te jox leen àlla bu mu gël de bu ngeen ko sojee mu ngi wàcc ci seen kaw de fa a ñu ray ko fa qaala tam wax buñ ko defee bañ ko reyee tong-tong yóbbu séddoo ku nekk yóbbu sa wàll sa kër faqaala wax saalixu ñu ñëw ci saalixu ne leen ana giléem ga ñu ne ko giléem ga rey nañ ko séddoo nañ ko mu ne leen ñetti fa a leen mu ne lu wax mu ne naax na ñetti yoon mu ne leen ñetti fan leen dese ci àddina bi ñetti fan ngeen nar a koy faqaala wax saale ko faqaala wax ne leen leen saale tama taw yóbbu la leen kum ciy kër seen salaasata ayaamin ñetti fan topp ngeen xala ko ñetti fan rek ngeen di am ci kawaat naa ko yéen ñëpp ngeen xala ko de hmm? zalika loolu waaɗum waaɗum nde hella rewlo makko ɗum ndebu ndebu ndebu narti moom de muy nde hella ɓe allah o kam ne dëgg la de wala ma jaabani ke amrona mbiram halak seen ne jeena ñu musal salihan salih wala ni ak ñaaña amano gëm nañu ma o hande moom de bi rahmatin ci yermande min naam gutke ci ñoon ñu musal leen de min xisi yawma idin ci toroxtaani bo wala bés inna rabbaka naka borom sa wo moom alkawi mooy aji dëgër